simila sasal day waaw léegi mu leer ubbil tribune yéene kaay nañu waa piir bu Serigne Moustapha Sy day njiital Moustapha Sy wal Moustapha Sy ñoom daal ña ngay sàkku nag poste député bi bu Issa Sall leen ko delloo waaw ginnaaw nag bu professeur Issa Sall moomee daal di créé parti ba nuppi ah neexul ba neexul day waaye nag mënatul nekk kon député pur te xibaar yi nga xam ne nag maanaam tribune daal dina koy am dee bu dee dëgg la waaw na ko joxe dama ne la moom professeur Issa Sall moomee waaw gannaaw nag ba mu nekkee ci ay tànku ñu daaneel ko kon te assemblée nationale googee la ñu ko fal ministre conseiller à la présidence de la république eh samba yaa jum wala maa jum loolu am sur quotidien gis nga assemblée nationale googee waaw professeur Issa Sall day daal dinay génn daanaka kay dama ne la Déthié day mi ngi ci guddi gu bët setagul direct news ne Sénégal day woote bi nga xam ne Déthié Fall daal dina koy woote daal dinañ koy wuy si dëgg la parce bitim réew googaay daal dinañu wuy si Déthié Fall laa a wax waaw Déthié Fall moomee ah nee na diggee bor la ñàkk koo fay tooñ la engagement yi nga xam ne moom laa jëloon seen kanam yëpp loolu laa bëgg a def loolay dëgg Déthié Fall ne fukki at ak juróom-benn ngi ni la maa ànd ak Sow astafurlah ak juróom-benn nag du fukki weer ak juróom-benn de te du fukki fan ak juróom-benn te du fukki waxtu ak juróom-benn loolu dunduk lumb la c'est toute une vie Déthié Fall direct news ne léegi nag farata la ñi nga xam ne maanaam ñoom la ñu dénk ni la suñu gouvernant yi ñu ne ñong boorale ca kaw tënk nit ñi yeewu leen waxtu yu kon dafa jot ngir ñu daal di yeewi doomu aadama yi laa la wax dee ca faa lay waxtu samay kàddu dee looloy dëgg Seydou Gueye ci la quotidien yéene kaay waaw nee na mënoo taalu daay lakk bu réew ba nuppi naan da nga koy jéem a fay woote sapeur pompier Alioune kaay nee na man day dama ci sama réew mi la tiital naa ko lool lool lool parce que walaakaana gi nga ne moom la état bi lee nekke taxawaayam wii waaw doomu jàngoro yi nga xam ne ñoo dugg suñu démocratie bi lée doy na waar Alioune Tine ne bii daal mooy bu njëkk laqatu daal ci lu ragal lu bari na lool torop sax alluntin ne bu njëkk ba mooy mbooloo mi nga xam ne nag moo làqu kon ci manifestation yi lée booy benn ñaar fitne ne tam xam ne la ilaha illallah dëgg la te na de lool looloo a doo doomu aadama yi a la wax tas Sénégal gii ñooñee dañ a war a xeex te lu mu laaj nag ñu def ko cax directeur général lu impôt domaine a kay Mame Boye Diao ne maa ngi sakku ay ñaan ci jullit yi lée ba ci église bi lée ci ñi nga xam ni kon dañoo jël ay mbirum waaso ay mbirum xeex kii tukulóor laak séeréer laak joolaa laak olof laak Mame Boye ne loolee nag dañ cee war a jug def tey ñaan laas waaye xoolal ma jàmmaar looyee amoon ca université gëlé diggante day nee nañ yenn ci ay journaliste defuñ seenu liggéey laa la wax déet waay ah kay parce gis nga coow loolee nekk ci sàcc scooter la jóge bu ñu sukkandikoo ci waa Kikendo waa Ndef lañ ne déedéet du sàcc de mbirum abal la kii da koo aaloon scooter lii moo indi coow li de cadre université yi ne waaye nag journaliste yu bëree bëri ak ay observateur yu bëree bëri day xeex boobee dañ caa daanu bëgg a indi nag ay mbirum etnii mbirum joolaa ak séeréer loolee amul laas réewale doomu aadama yi laa la wax Mamadou Lamine Diallo day ci 24 heures ne njiik Macky Sall njaak moo la ci wax échoué Macky la laas ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali est xam nga ne nguuru Macky Sall gi lée bàyyiwul ba léegi nii ñi ànd ak Sonko de nguur gi bàyyiwuñu leen de bog sobri ne la parce que chef de protocole Sonko day tey lañ ko convoqué ci dikk eh waay Samba dama ne lay njaay daa war dem nag wuy ji ci manifestation waaw jàpp nañ ne nguuru Macky Sall gi deful dara lu dul xuppaate day tiitalaate wàllum intimidation la te na nguuru Macky Sall gi day diggee ak waat yi nga xam ne kon moom la defoon ci kanamu xalif général murid ya day Macky ak waa këram a ngi koy trahir de 24 heures yéene kaay xam nga Sénégal lan lañ fa war a ay mbirum élection yoo xam ne kon ci daf yëngal làmbatoog bi di ko laaj lañ koy teg de ay mbirum calcul politique ak yu tar ay mbirum wuyu ko ci élection mais yooyu ñoo fi war a jugee critique yéene kaay ne en tout cas plénière ba ajuma day kaay mission commando moo nar a dem défendre projet ba ca assemblée nationale de danaa tar ca moom de ndaxte xam naa ne opposition bi ak non aligné ña nga toog di ko xaar ca assemblée enquête yéene kaay ne boolee ay élection de waxtaan ba juboo mënu ca am déedéet loolee bu dee gars yi ñu ngi koy xalaat tamit day dem ah am nañu taxaw ne du ca dal parce dee ca fay mi la non aligné nee na gis nga boolee ay élection locale ak député loolee danger la mar di amuñ ci tamit genn taxawaay ay mbirum couplé ay élection élection yooyee Barthélemy Dias waaw candidat la de taxawaayu candidat la de ci ville bu Ndakaaru njaay jël la ko wax maire de Dakar en moo xaaf de ñi ngi doxantu Ndakaaru les écoles yéene kaay ne waa forum de bañ demee ca ngaaca gëgële ah lu tolloo fukk ak ci ay teenu gaz te dëkk boobee askan wa amuñ dara dara dara ba dara booloo jeex la wax Birahim Seck forum civil day waaw nee na gis nga teenu gaz wala pétrole bi nga xam ne moo doon tàkk day digganteem ak askan wa ñaari téeméeri mètre dong la éeway samba waaye du du wutum liggéey xëy poste de santé na leen rey ngaa jaga daal amul dara Birahim Seck forum civil ne lii nag la kenn xamul lii lan la te kenn mënu koo nangu laa la wax vox bi ne Babacar Diagne day njiital sénéra waaw daal di ne génnee ne ñoom ñooy nekk ci beneen débat la mbirum tarixa yi ah bi yoon day dakk de li war a dakk kay mooy suñu équipe nationale beeg layaam layaamal gii mu nekkee dem naa ca football ba tribune yéene kaa ne en bi la bëri na ay déchets de yoo xam ne war nañ koo defaraat waaw mais xoolal match bi démb box ba bi ne en tout cas day musiba bi naroon na dal démb gaynday day Cheikhou Kouyaté moo ñu ci génnee de waaye njoogu may Aliou Cissé ne la résultat bii moom Sénégal mënu <laughs> tey dee suul gaz du ko teree xeeñ ak ay troisième mandat yooyu moom du fi am tey kay dañ naan loo football football football football football football football te doo dugal boolee woo ca fulaak fayda di layam-layaamal rek jarul dem coupe d'Afrique de boo paree mën a alaaji tëjal